waaw damay continuer di wax rek ne keroog alxames bi passé le vingt quatre septembre bi passé de woote naa réunion conseil municipal moo xamné ci orientation budgétaire ak li ñuy wax voté compte administratif bi ñi commencé ci poñ bu njëkk bi moy voté compte administratif bi fanwéri conseil ak ben ñoo ko voté kenn con conseil donc mom moko ko voté wul té lolu vraiment nonu la vraiment démocratie di démé bi ñu voté compte administratif bi ba paré lañ jall ci point bi nga xamné mom moy orientation budget bi orientation budget bi dafa laaj ñi xaj commune bi ay patch patch yi ñu ko xaj moy ñenti euh, zone

zone bu ne ñi boole ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi bokk ci village yi nga xam ne moo ko polarisé euh, zone yooyu tête de zone yi mooy premièrement Cayenne mooy zone un zone deux mooy zone Kaba zone trois moo zone misra charen, zone quatre moo zone medina Kanen Malik. donc voilà zone yi ñu ko ni ñuy defoon alors bi ñu defee loolu ñuy def priorité euh, gars yi def recherche d'information ak. Euh, euh, proposition à travers les quatre ateliers bi ñooy ñu def restitution biñ ñu restitution ba paré alors ci bobu lañu pré euh, prioriser action yi nga xamné mom moom wara def mais biñu xolé lepp fi nga xamné mom la lepp euh, quatre euh, zone dégager la priorité bi l'éducation, la priorité bi ci santé la priorité bi ci jeunesse la priorité bi aussi ci euh, lu mel aussi vraiment lui accompagner les groupements de promotion féminine donc loolu moo tax ñi ak yooyu point lañ inscrire bu baax danañ ko alimenter après ñi def ko budget primitif indi ko ci conseil bi avant le 31 décembre pour voter budget bi nii daal mooy li nga xam ne déroulé woon ci conseil municipal municipal bu Cayenne euh, ci li nga xam ne moo doon orientation budget bi maintenant euh, li nga xam ne mooy point euh, vote compte administratif compte dañ ne da ngay voter compte budget bi nga xam ne moom mooy n moins un mooy du budget 2020 parce que gestion bi pareegul budget 2020 2019 la ñuy war a voter budget 2019 boobu bi ñu ko voté ba pare compte bi bi ñ ko voté ba pare alors 31 voix ñoo voté Euh, pour oui benn voix moo contre donc loolu démocratie la moom itam bàyyi nañ ko mu am euh, xalaatam donc loolu moo tax ba ñi voté ko noonu compte administratif bi nii la déroulé.